waaw tey bis bu rëy la euh, ndax Sénégal moo fi daje euh, politique yi syndicaliste yi euh, kilifa diine yi xale yi mag yi ñëpp fi daje tey pour Sénégal rek seetlu gën ci Sénégal xool élection yi nga xam ne dafa war a jeex jublu ci leneen kañ lañ ko war a tëgg tëgg ba gën a rafet boo xam ne da koy teg ci yoon jiital yoon dafa am délai yoo xam ne booy convoqué président mënul convoqué du respecté ay délai ñi naan ko war a convoqué avant 2 avril xamuñu droit xamuñu lan mooy délai yi ñuy wax ci convocation convocation bi kon pour ñu respecté délai yi pour nit ñi mën a ñëw wuy si il faut il faut que ñu dem ba le 2 juin su fekkee délai yëpp dañ ko respecté dina génn koor gi ñu kooru catholique yi ak koor jullit yi jóge ci dàkka bi jóge ci gàllankoor yëpp korité yëpp dina jeex te nawet bi du ñëw balaa nawet bi ñëw le 2 juin du taw en général euh, juillet mooy taw donc 2 juin bu ñu ko dóoree mu daanu ensuite président d'accord na ci mu toog deux mois de plus parce que 2 avril ba 2 juin jarul ñu jëli beneen président di ko fi teg mais est-ce que maître nekkoo di jox président loo xamante ne moom itam bëggu ko. ndax nee na moom dafa doyal sëkk doyal na mais dañ koy dañ koy ñaan ni ko na respecté li constitution bi wax constitution bi moo ni président daa war a toog ba ki koy remplacé ñëw mu jox ko lenge kon loolu lañ koy ñaan mu nangul ñun yoon nee na dafa war a toog ba def passation de service loolu nag article 36 alinéa 2 moo ko wax te dañ ne loolu ñëpp d'accord nañ ci kon daal na ñëpp xam ni élection yi le 2 juin la na ñëpp xam ni euh, président day toogaat deux mois de plus mu 2 avril ba 2 juin dañ koy ñaan mu nangul ñu ko parce que président bu ñëwaat ci deux mois xamoo fete sa tànk loo réew mi nu muy doxee xamaloo nu ñu fayee salaire yi xamoo noo yoree réew mi ci ñaari weer loolu daal dëgg dëgg boobu risque di ko jël. loolu kan nga kan ngay waxal ci loolu. Macky Sall yu ñaan mu nangul ñu loolu nañu ko nangul ne moo la ñuy ñaan mu ne ñu deux rek deux mois rek ñi ko bañ nag soxaree ko iñaanee ko bañ ko ba bëgg a tilimal dara mel ni moom moo bëgg toog te moom nee na doyul rek ñooñu ñoom waxuma ñooñu ñooñu même bu demoon suba lay def it ñu sàkk ko bu demoon tey ci guddi lay def dinañ ko yàq deram parce que ñu ko bëgg te duñ ko duñ ko mas a bëgg ñooñu taxu may wax yooyu saagakat yooyu yaakaar ne amu amuñu cër ci biir réew mi am nañ cër ci réew waaye nag boo soxoree doo gisati da ngay gumba boo iñaanee ba iñañati da nga war a gis doo gis boo bañee nit ki bañ koo bañ ba nga xam ni ñaari weer yoo xam dangay koy toog ñu organiser élection yi mu joxe lenge yi lépp naagis bu dem mënoo ko ko muñal yow doo nit maître dañu reporter élection yi mu jur ay coow ay bakkan rot ci ndax jàppoon tey euh, nu ñu demee nu ñu nu ñu demee euh, yóbbu élection yi pour euh, jusqu'au 2 juin du mën a jur coow ba yeneen di ci am. coow bu coow dina am parce que dina ñoo ñoom il faut ñu coow waaye coow dof ak coow yembar ak coow kuy coow bokk la coow réew mi réew mi coowul réew mi xam nañ li ko jik xam na li ko jik kon ay ñu nekk fële di wax seen wax dof leen coow ba xam. ñu ñooñu xam ne ñii dañu dof ay waxi dof jarul sonal sa bopp. d'accord Pathé dafa a c'est bon. voilà man j'ai envie de vous demander quelque chose ba xam da nga am benn dent sa diggante ak waa Pastef parce que dañuy gis ne à chaque fois seen da ngeen di laalante ci mbir bu ma laaj ñoo xam ne dañoo dee bay suul leen ñoo xam ne dañoo tas. koo nga wax turam nekkatuñu yoon tas na leen CEDEAO nee na tas fi jaar na ci yoon bu ma tudd turam man man juriste laa xam droit. juriste nag boo ko laajee lu amul lu amul mënu ma cee wax lu may bañee lu amul ñoo xam dee nañ ma suulee lu may wax ak ñoom. loi d'amnistie pour la sortie d'Ousmane Sonko. d'accord d'accord du ma ci du ma ci sa d'accord. lu tax loi mais ku rey ku reylu ku toj ku tojlu ku taal ku taalu man sa place mooy prison waaye man nekk ma ci ñàkk fayda yooyu. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax maître El la Diouf